barakaatuhu maa ngi koy ci turu sang yu tedd yi ma àndal. nee kaddu yi ma yëkkati maa ngi koy yëkkati ci turu sang yu tedd yi ma àndal. di ko jëmale ci sang bu tedd bii toog ak njabootam bu tedd di ko jëmale ci sang bu tedd bii toog ak njabootam gi mu àndal. li leen jox cadre sang googu nag. nee li leen jox cadre sang googu nag. Cheikh Seydil Hadji Malick la. Cheikh Seydil Hadji Malick la. ak Cheikh Ahmadou Bamba mbokkam. ak Cheikh Ahmadou Bamba mbokkam. seen leer ya. nee seen leer ya. ak seen barke ak seen barke ba tey ba tey Seydi Hadji Malick Cheikh Seydil Hadji Malick wàcc fii tey ci Touba wàcc fii tey ci Touba jaar ci jaar ci Serigne Bachir nga xam ni Serigne Bachir mii nga xam ni mooy buntu waa Tiwaawan yëpp fii ci Touba tey. fii ci Touba te loolu. te te loolu. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. moo samp buntu bi moom. moo samp ci Serigne Bassirou Mbacké mi. kon ñu ngi koy jox nuyoo bi. nee kon nuyoo bi ñu ngi koy jox Serigne basiiru mu joxol ñu ko sang bu tedd bi toog. mu joxol ñu ko sang bu tedd nee ñuy ñaan yàlla. ñi mu fi wuutu. ñi fi wuutu. lu ñu dund. lu ñu dund. yàlla nañ ko boole. yàlla nañ boole seen dund ya. mu dund lu ko nga dund lu ko mu mel ni tay jii nee mu mel ni tey jii tey. jataay bi. jataay bi. ni ma ko mën a firee. ni ma ko mën a firee. waxtasimu. waxtasimu. bi xablillahi. bi wala tafarraqu. jàpp ci buumu yàlla nee jàpp ci buumu yàlla gi. te bañ a tàqalikoo te bañ a tàqalikoo. buumu yàlla gi mooy diine lislaam. nee buumu yàlla gi mooy diine lislaam. ndax tey. ndax tey. fii ci Touba. fii ci Touba. bu ñuy julli. bu ñuy julli. kaabatallaahi la ñuy jublu la ñuy jublu. bu ñu kàbbaree. bu ñu kàbbaree. faatiha la ñuy jàng. faatiha la ñuy jàng. kemtalaay kattan ci alquran. ci alquran. ca Tiwaawan noonu. ca Tiwaawan noonu. ca noonu. ca Laayeen noonu. ca ba noonu. ca Cene ba noonu. ca Ñaseen noonu. ca Ñaseen ñu bokk kalimatu laa ilaha illallah. nee ñu bi. bokk Seydina Muhammad. bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bokk diine ji bokk diine ji. bokk nag. bokk nag. lu rëy. lu rëy. muy deret. muy deret. ak meen. ak meen. sëriñ Mountakha. nee sëriñ Mountakha. ñii fi ñëw tey. ñii fi ñëw tey. sa njaboot lañu. sa njaboot lañu. ànd ak seen ndijaay nag. fonk yoon wi fonk yoon wi. moo tax ñu jëli seen lijaay moo tax ñu jëli seen ndijaay. Serigne Kabir Kan mi ngi nee toog. bala ñoo tëj waxtaan wi bala ñoo tëj waxtaan wi. dana ci dugal ñaari kàddoom ci dugal ñaari kàddoom. ndax mooy sunu kilifa tey ndax mooy sunu kilifa tey. Serigne Ousmane Kan moo ko Kan moo ko jur. mu bokk ak soxna Ayda Kan Kan ndeek baay jur sang bu tedd bii toog mooy suñu ndijaay nee kon mooy suñu ndijaay ñun ñu ànd tey nee kon fa tabaarakallahu ñii nag ñii nag jarul laaj jarul laaj xalifa ba xalifa ba Serigne Babacar Sy joxaat ndigal ni leen ni leen jàmm du ëpp jàmm du ëpp dem leen ngeen jaale ji waat dem leen ngeen jaale ji waat seen wayjur nemmeeku waat nemmeeku waat xalifa ba xalifa ba nemmeeku nemmeeku Serigne Bachir ak njaboot ga topp ci ginnaawam yépp ndax seen gisee. nee ndax seen gisee. la sa maam waxoon la sa maam waxoon. Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ahmadou Bamba. seen gisee seen di gisee toujours. di gisee toujours. di jokkoo toujours di jokkoo toujours. mooy rahmaani rahim mooy rahmaani rahim rek. ñu ñàkk a gisee. ñu ñàkk a gisee. ñàkk a déggoo ñàkk a déggoo. mooy seytaane rajim rek. Cheikh Seydil Hadj Malick. nee Cheikh Seydil Hadj Malick. maamu jëmm yi toog. maamu jëmm yu baax yi toog. di sa maam yow mii di sa maam yow mii. moo waxoon rakkam ja moo waxoon rakkam ja alaaji Mor Xujje Si ni ko ni ko heure booy demati heure booy demati mbir kilaan mbir kilaan boo jaaree njaareem boo jaaree njaareem sama mbokk mama amul kudul moom sama mbokk ma amul kudul moom na nga dem seetal na nga dem nga seetal ma ko bis mu ñëw bis mu ñëw. fekk euh, sang bi fatu. fekk sang bi fatu. ndax fu mu mës a tisbaar. ndax fu mu mës a julee tisbaar. dina tëj dina tëj. balaa ubbeeti balaa ubbeeti. ëllëg ndax jaamu yàlla gi. ndax jaamu yàlla gi. li mu programme ci yàlla li mu ci yàlla. xajul ci guddi gi. moo tax muy xaaj bëccëg bi moo tax muy xaaj bëccëg bi. xaaj bu njëkk bi xaaj bu njëkk bi. mu jox ko nit ñi mu jox ko nit ñi. ak bokk yi ak bokk xaaj bi ci boole ko guddi gi boole ko guddi gi. jox ko yàlla jox ko yàlla. te du ko doy te du ko doy. mu egg si nee mu egg si. ñu ne ko sang bi fatu na de. ñu ne ko sang bi fatu na te du ubbi lu dul suba. lu dul suba. mu ne ah mu ne ah. mbokkam ma dey mbokkam ma dey. moo ni ma woon moo ni ma woon. naa fi di jaar naa fi di jaar. di ko wax ay yóbbanteem. muy xam li nekk ca moom muy xam li nekk ca moom. moom it moom it muy xam li nekk ci moom muy xam li nekk ci moom. ma mën fanaan ndax saxaar gi léegi mu ñëw daal di dëdd wuti gaar ba ba saxaar gi ñëw. ba gi ñëw. ñu ngi koy juweeral. ñu ngi koy juweeral. mu ngi corné. mu ngi corné. Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Fall. ko fa fekk ko fa. ndek ko Serigne Touba yëg na mbir mi. ca biir ca baatin. ni ubbi di ubbi di ubbi di ubbi. bari tëll. waa ni ana Mor ma furoon dégg waay. ko dem na gaar ba de. mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall dawal nga dem jëli ko. bi mu eggee. kaay wuyu Serigne Touba. mu ni ko saxaar gaa ngi doom. ko mu ni ko ñëwal wuyu ko ñu àndandoo dem wala wuy woo ko ma topp ci sa gannaaw ba fu ma dee fekk rek ma dee foofa waaye du ma delluwaat mu ni ko àddoom ah, kon de damay jóg kon de damay jóg loolu moom bu la ko jaralee mu jaral ma lu ko ëpp ñu ànd ñëw ñu ànd ñëw ci kanamu Cheikh Ahmad Bamba ñu waxtaane seen waxtaan ñu waxtaane seen waxtaan waxtaane seen waxtaan lii ma wax nii keroog la ko Serigne Touba wax ni njabootu alaaji Malick njabootu alaaji Malick ak alaaji Malick ak alaaji Malick di jokkoog man di jokkoog man may jokkoog ñoom mooy rahmaan ak rahim rek. waaye ñu ñàkk a jokkoo a jokkoo gisuñu ma gisu ma leen mooy seytaan ak rajim rek nee kon tey jii rahmaani rahim moo fi am bi ci des xalifa bi ñëw na porte parole am ñëw na waaye njaboot gi dañoo war a ñëwaat. ndax ñu nag ñu nga ca Tiwaawan. ndax ñu nga ca Tiwaawan. Paate Diop mi ngi nii mooy sama seede. moom mi moom mii. bu gàmmu jotee bu gàmmu jotee wala ziar jot wala xew-xew jot ci benn xew-xew boobu lu mat fukki délégation yu jógee ci ëllu Mbàkke dinañ fi jógee ñëw Tiwaawan fekk si waa Tiwaawan kon ñun waa Tiwaawan délégation yi du doy dañ koy yokk ndax suñu àndandoo ak suñu déggoo ñëw dina fekk si dafa am solo buñ la ñaanalee nag ba pare nga yàgg fi lool. te wér. yàlla jàppale la. ndax ku yàlla dimbalee am ndax yàlla dimbalee yàlla na la yàlla dimbali. yàlla la yàlla gën dimbali. yàlla la yàlla gën dimbali. te ñu ngi lay seedeel nag ni. say kaddu. ñu ngi koy déglu ñoo koy déglu. sa kaddu sa kaddu. génnewul ci sa làmmeñ. génnewul ci sa làmmeñ. ci sa xol lay génne. ngay digle ngay digle. wa ma ataakumu rasul. fa xuduhu wa ma naakum anu fantahu. bañ dalee dégg say kaddu léegi. génnul foofu alquran rek hadis rek waxu Serigne Touba rek kon ñu ngi lay ñaanal yàlla ñu ngi lay ñaanal yàlla di di di ñaanal di ñaanal sa mbokk mi jiitu nag sëriñ Sidil Mokhtar. sëriñ Sidil Mokhtar. mu baax ma. mu baax ma. te tedd. te te yaru. te yaru. te dal. te dal. te indi jàmm. te indi jàmm. ci Sénégal. ci Sénégal. jàmm jooju nag. jàmm jooju nag. fu mu ko indi rek. fu mu ko indi rek. fu mu ko yóbbu rek. yàlla na ko yóbbu fu ko raw. ñëw rek. ñëw rek. ràcc jàmm. ràcc jàmm. ci Sénégal yëpp. ci Sénégal yëpp. bëgganteeg. bëgganteeg. njabootu Seydil Hadji Malick. maamam maamam. Serigne Abdou nag moo ci jiitu. dañu wax ni euh, ne kii woon wax léegi muy sëriñ Mor jàmm si li mu wax. yóbbaale na yëpp. bi ñu àndal yëpp. ndax rafet ndax kaddu yi rafet na. te ñi ngi jëm ci timis gi. te gi. ñu bàyyee kaddu gi ak Cheikh Bass. mu sànni ci ay kàddoom sëriñ bi ñaanal ñu ñu may ko mu jublu ci waxtu wi nee fa tabarakallahu sëriñ Babacar Si mi mooy taawu sëriñ Abdou nee na ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant tabarakallah waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul kilifa gu tedd gi muy seex Muhammadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir. mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne Touba tey ci kaw suuf. mi ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér. di yëkkati am nuyoo. ni ko lislaam santaane. ni ko lislaam santaane. ndax delloo am nuyoo farata la. ndax delloo am nuyoo farata la. tàmbali bi moom mooy sunna. kon nag nee mi ngi delloo am nuyoo. ci gën jaa rafete anam. di ko teg ci loxoy bokkam yu tedd di ay doomam. di ay doomam. di ak njabootam. di ak njabootam. di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si. di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si. imnu Serigne Mansour si. imnu Cheikh Mouhamadul Mansour si. imnu Serigne Babacar si. ak Serigne Babacar si. mi nga xam ne moo mag ci doomi Serigne Abdoul Aziz Al Amine. ak rakkam sëriñ Cheikh Tidiane ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp ak sëriñ Kabir Kane mi nga xam ne mooy seen nijaay sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu di leen delloo it am njaal waaye nee na yéen it mu di leen ko jaale ndax kii mu ñàkk yéen a ko bokk ndax xam na bu baax cër bu mu amoon ci yéen kon nag bu lii xewee ngeen ñëw ànd koog moom. te seeni kilifa dikkoon. te seeni kilifa dikkoon. te buñ dikkoon yóbbaale leen. te buñ dikkoon képp mu doy sëkk mu yóbbaale leen. ngeen ñëwaat. ngeen dellu ñëwaat. ngir feddliwaat. kolere gi nga xam gi nga xam ne. seen wayjur. seen daana ko doxal boppam. daana ko doxal boppam. moo indi jotaay bi tey. te moo indi jotaay bii tey. li Serigne Cheikh seera léegi. li Serigne Cheikh seera léegi. wax wax Serigne Mouhamadul Muntaxa ne ko. bi fi Serigne Mansour si bàyyi ko. bi fi Serigne Mansour si bàyyi ko. yaa ñëwal sa bopp. yaa ñëwal sa bopp. jaale si ko. jaale si ko. dem ba barab ba. dem ba ca barab ba. ñaan. ñaan. ñaanal ko. ñaanal ko. dellusiwaat ci kër gi. dellusiwaat ca kër ga. door a dem ci Serigne Abdou. door dem ci Serigne Abdou. mais loolu lu fees ci biir xolam. nee na loolu lu fees ci biir xolam la. kon nag Serigne bi. kon nag Serigne bi. na seenum xel dal. na seenum xel dal. ci xam ne. ci xam ne. ba mu jugee ba fii mu ne. ba mu jugee ba fii mu ne. yitteem jëpp. yitteem jëpp. weesuwul lislaam. weesuwul lislaam. ak makaarimul axlaaq. ak makaarimul axlaaq. yéen ñëpp yéen ñëpp jàmm. du xool ci kenn safaan. du xool ci kenn ab safaan. te euh, suñu borom defal ko. te it sëriñ borom defal ko. la sëriñ Touba daa wax ne. la daan wax ne. damaa xool àddina. xool àddina. xam ko. xam ko. ba mu jeex. ba mu jeex. ma teg ko ci sama pegg loxo. ma ma teg ko ci sama pegg loxo bii. waaye ma xam ne amul njëriñ. waaye ma xam ne amul njëriñ. ma sànni ko ma sànni ko. ñu bari yaakaar ne xaw ñu bari dañoo yaakaar ne nag xaw ma ko. te fekk maa ko gën a xam ñëpp. loolu moo nee na loolu moo dal sëriñ bi. kon na seenum xel dal. li fi kilifa kilifaam yi bàyyi woon. li fi kilifaam yi bàyyi woon. ba àgg ci Cheikh Sidil Muxtaar. ba àggsi ci Cheikh Sidil Muxtaar. muy kóllëre gu yàgg. muy kóllëre gu yàgg. ak bokkuk ak bokkuk deret. ak bokkuk lislaam nee na yooyu yëpp dana ko sàmm te fu mu àggoon rek dana ko gën a yokk gën koo rafetal itam gën koo yaatal ba ñëpp gën koo yëg kon nag nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ndax waxtu timis yu dafa jot te boo xasee ba agsi daa am lu ci Serigne Touba waxoon dafa waxoon ne noddu ñaari baat rek la allahu akbar. allahu akbar. ak la ilaha illallah. ak laa ilaha illallah. mu ne allahu akbar. mu allahu akbar. mooy lum la fekkee lu ne. mooy lum la fekkee lu ne. lu gën a war ñëw na. lu ko gën a war ñëw na. laa ilaha illallah. laa ilaha illallah. mooy foofu mën di jëm. mooy foofu mën di jëm. te du man yàlla. du man yàlla. foofu doo fa dara. foofu doo fa jëlee dara. kon ñu jeexale foofu kàddu jeexale foofu kàddu yi. ñaan sunu borom fay leen. aw yiw lim daale ci. lim daale ci. ci ngeen def. ci lii ngeen doon def. waaw nee na ñu ngi sant bu baax. di leen gërëm bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jàll amiin